yéen kay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Macron mu langaamu ci ndoddal Macky Sall jël boppam teg ci bu Macky Sall boole koog di lewatal kanam gi ne doom juy gelu ndayam photo boobee moo nekk ci xët mu njëkk national nganook ñetti fan gi njiitu réew France Emmanuel Macron amal ci Sénégal journal bi xëy na di ko bilan mu di lu jëm ci ndaje mi ñu doon def ci wàllu njàng meeg njàngale mi ba ci yeneen i ngan gi ci gàttali ci soleil national gis moo di jaar na ko teeru bu rëy bañu ko teeru moom Macron ca Ndar déggoo di accord yi mu signé diggam ak Sénégal lépp mi ngi ci soleil national ngir xeex géej géeg ni muy taañaañale tàmbali wutali dëkk waaye ci diwaanu Ndar mu di érosion côtière Emmanuel Macron digg na ne dina ci jàppale Sénégal fukki milliards Le mel ne ku naan ko wàññil milliards li Macron digge matul fukki milliards juróom-ñetti milliards moom la digge Banque mondiale daal moo ne moom dina jël fukki milliards ak juróom-ñaar boole ci kit ngir xeex gi ñuy xeex wàllu érosion côtière boo boolee xaalis bi ñu ci bëgg a def yépp Le nañu toll na ci ñaar fukki milliards a banque mondiale joxe na ñaar fukki milliards ngir ñu tànn fukki junni ci ñoom wutal leen feneen fu ñu dëkk journal enquête boole ko ak kàddu yi Emmanuel Macron yëkkati ci get ndar mu di ñëw naa fi gis naa li fi ak tiitaange gi mu jur ak san wi ak miiréeg ni muy daanoo ko li yàqu ci koom gi Sud Quotidien nañu président bu France di Emmanuel Macron ak njiitu Sénégal di Macky Sall nañu ngir xeex érosion côtière bi di géej gi nangu kër yi waaye ca gànnaar di ci Mauritanie gisee ak président Ould Abdel Aziz nee na it moom Macky Sall du mës a jug ci wetu askanu Guet Ndar du mës a jug ci wetu mool yi Vox Populi nañu coowalee bari rek waaye Emmanuel Macron ganoog ñetti fan gi mu def ci réewum Sénégal pertement amu fi ne li mu fi diggeeg li mu fi bàyyi yëpp boo ko boolee weesul ñeent fukki milliards ak juróom-ñaar ci jamono jooj entreprise France yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal ñoo ngi fii jëlee ci réew mi ñetti téeméeri milliards borom République en marche di Emmanuel Macron l'observateur nee nañu Macron attaché de presse bii di Sibeth def na fi lu kenn deful def na fi lu ne weng def na fi lu koy topp ba ci ay sët sëtaatam ne ci diine da gala bu doon amal ca palais de la république ñëpp sañ se ñëw toog ku ne sol sa lu baax moom soxna si Sibeth Ndiaye bi mu ne tëll gaañ dañoo jaaxle wuute wuute wu nag SDF bu jox ci seen biir ndax col ko gu bonte incorrect gu mu sol yéen kaay bi nañu jàpp leen ab jiin bu xonk la sol teg ci piliweer doon ngóobe ko wokkante am sax xam ne dañoo dem ba jëppi ko ndax jàpp ne Sibeth Ndiaye ñàkk respecté Sénégal gi mu cosaanoo moo tax mu sol lu loolee ca diine dagal la ba journal Source A ñu nga nag Macron gi tuuti ko noon dal ñu ci ca Ndar ndax avion bu yóbboon Macron di Falcon 100 moom bëkkanteeg avion bu président Macky Sall di Pointe Sarène ca aérodrome bu Ndar am na tuuti loo xamante ne ji ci laafu avion bu président Macky Sall bi yàq na ca waa agence des aéroports du Sénégal Source A ne ñu copilote bu France bi la ne moo indi coow li waaye Source A gëmul leneen la gis ne moo li tax ñaari avion yi ruusuwante ba tax ñu gaare avion bu Macron foofe doon xaar mécanicien yak enquêteurs yi Macron muy dem ca Ndar avion am la jël waaye bu muy ñëw avion président Macky Sall moo ko indi source a ne ñu lii da doon yàgg rek waaye gàcce gu ni mel xamoon nañ ne dina mës a am ci réew mi ndax dañoo jëli bojo bojo dénk leen aviation bu Sénégal bi te xamuñu ci lu bari li Abdoulaye Wade defoon ñu koy ŋaawtu ŋaawtee jël ay ñoom Farba Senghor ak ñoom Habib Sy ak ñoom Karim Wade di leen jox wàllu transport aérien Macky daanaka loolee la def ne Maïmouna Ndoye Airlines Abdoulaye Mbodj directeur général aéroport Blaise Diagne ingénieur BTP la bâtiment la xam Pape Mayel Diop Njital ADS société Forza la ko Boudon, defar farine ak sunguf ngir ay mi PCA agence aéroport du Sénégal yéenekaay bi professeur Lewon, woon Jean de la Fontaine secrétaire général Badi di Mamadou Diouf informaticien système Gaindela, la douane la xam source a Bobo boo ñi dénk leen aviation bi waxuma la avion Yu fóonante waaye Yu mbëkkante ci la aviation du politique Boch politique lay ngi ne cobbay ca ndar ci diggante Mansour Faye ak Awa Ndiaye bi info maire bu ndar ministre hydraulique Mansour Faye moo doon janoo démb ak taskatu xabaar ngir doon leeral lenn ciy ponk nee bi ñuy waajal ñëw Macron dañoo daje woon teg suñuy plan la waxoon moo di ñii di député yeeg adjoint maire yeeg adjoint président conseil départemental yi ca place Faidherbe la ñuy toog ministre yeeg gouverneur yeeg président conseil départemental seet nu ñuy waajalee Macron ak nu ñu koy dalalee Awa Ndiaye mi gàddu làmmiñam fu ne mu nekk fay wax ma nga woon ci Amérique nekk ci mbiri boppam ndaw la yónnee mu ne ci foofee fa la Ahmed Fall def ko président comité d'accueil bi ci foofee la sàkkoo Cheikh Bamba